xibaaru biti réew yi ak Ibou Diouf ñu wax ci fitna gi diggante Israël ak Palestine bilan bi mi ngi mel ni mu ngi yokku ci waa Israël lu toll ci junni ak ñaari téeméeri nit yu ñàkk seen bakkeen. waaw muy xibaar yi ñu joxe tey ci fajar ñuy xamale lu toll junni nit ak euh, ñeenti euh, ak ñaari téeméer ñàkk nañ seen bakkan euh, bu ñu jàppee rek ci côté Israël loolu nag bokk rek ci li nga xamante ne dafay firndeel yokkute boobu ndax bilan bi mujj. junne lañ doon wax ñu ne nag am na lu toll ci ñaari junne ak juróom-ñaari téeméer yu amee gaañu gaañu yu metti li ko waral nag mooy fitna bi juddu diggante réew Israël ak Palestine. ñu desandi ci euh, mbir moomee sax euh, ak matuwaay yi nga xamante ne réew Nigéria jël na ko moom nag. gannaaw fitna yi ñu nemmeeku foofu ca euh, si Jordanie ak euh, Israël moom nag jël nañu dogal rek jël seen doom tollu nañ ci ñetti téeméer ak fukk yoo xamante ne foofee la ñu doon dundu def nañu nasay pexe ngir fexe rek mu dellu fi nga xamante ne mooy euh, nigeria ñet nañu nag ay li ko doon waral ay pèlerin lañ doon doon ay jaaj yoo xamante ne dañ fa doon dem rek fi nga xamante ne mooy Jordanie euh, ca Niger moom mu mel ni euh, soldats français yi commencé nañ rek génne réew ma am na nag ab convoi boo xamante ne jot na jóge foofu utali réewu Tchad loolu rek di firndeel euh, diggante bu xaw a ñagas bi am diggante Niger ak réew France ci jamono jooju tamit waa États-Unis ñu ngi xam xamle ne rek lépp lu aju woon ci wàllu njàppandal ak li mel ñoom tamit dañu koy dàkkal. bu mel ni daal réew Niger moom jamono ji ñi mu doon jëflanteel am nay dogal yoo xamante ne jël nañ ko rek ngir wan ko ne ni ñuy doxali ànduñu ci ci loolu sax lañ doon wax léegi ndax buñ ko xayma États-Unis lu toll ci euh, ñeenti euh, téeméer ak euh, ñeent fukk ak lu tegalu million dollar lañ ca doon dugal ak ci wàllu ndimbal loolu tamit nee nañ dinañ ko arrêté bi jëmmi jamono beneen xibaar boo xamante ne dina neex ñi nga xam ne ñoo doon faral di tukki euh, di Air France nee na nag euh, fas neen yéen rek commencé waat euh, jëflante bi ci wàllu aviation civile waaye nag du doon avion Air France mais dañ koy jox beneen kër liggéeykaay boo xamante ne mu ngi fekk baax foofee ca Portugal ñi fay liggéey tamit ay doomu Portugal la ñu doon loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne réew France am na ko tamit. ngir wan réew al euh, Mali ne li nga xamante ne moom la ñu jox militaires yi réew mi ànduñu ci ñu joxale ko Rwanda ak ONG Human Rights Watch ñoom ñu ne. dañuy tuumaal kilifa yu Rwanda rek ci li nga xamante ne dañ fay faat ay nit di leen xoqatal di leen def naka sudul noonu loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne euh, Kagame président Kagame ak nguuram ñu ngi koy doxale moo waral nag ONG bi di artu rek bu ko defee dañuy faral di doxale ñu arrêté ko ndax loole bokk na ci liy tilimal euh, deru Rwanda soxna naata jërëjëf bu Diouf ci xibaaru biti réew yi bu leen fàtte ci kanam incha allah de quoi